moom ngeen di gis. da nga dem ñëw jël ñoom ñoom ñoo am dara. voilà bu ñu mënee aussi jël quelques réactions par rapport ak ñi nga xamante ñoom ñoo fi teew tey fii ngir mën a assister. Euh, cérémonie bi nga xamante ne moom am fii en tout cas wax nañu wax ne euh, cadre Pastef yëpp euh, ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Dakar Arena alors damay prolonger ci biir ma jël quelques totale bi nga salaam. maa ngi lay nuyu. maa ngi oh, ah, rek. deux mots am mbégte am kontaane parce que Ousmane Sonko dafa waxoon ne. un pays de héros ni de Messi mais d'une masse critique de citoyens conscients des enjeux Ousmane Sonko dafa taal xel yéen nit ñi moo tey xoolal nit ñaa ngi fii léegi ne daa am ku ma nee ak ku ma naan yow doo leen mën a organiser meeting di wax nañu fay 1000 francs ma ne leen les sénégalais sont conscients xam nañ ne 1000 francs bi ñuy joxe moo ñu permettre ñu préparer campagne ba a jël xaalisu état bi buñ campagne par ba am majorité à l'assemblée bépp changement bu ñu bëggoon danañ ko voté à l' assemblée changé de pays c' est ce que cette jeunesse là comme ba tax ñu na def. <laughs> alors monsieur. oui ça va bien vous allez bien vous avez vu la mobilisation ça n'a jamais eu lieu de mémoire de parti politique au Sénégal et ailleurs lii Pastef dong dong et vous avez vu. n'ont qu'à faire la même démonstration pour voir leur poids électoral c'est important xaalis su réew xaalisu nguur. waaw jërëjëf dañuy continuer jël quelques réactions par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw fii tey ah donc dañuy dem très rapidement. waaleykum salaam. Sénégal 7 maa leen di nuyu. waaw mais sant yàlla voilà di saluer également mobilisation bi am fii nii au niveau Dakar Arena nga xamante ni fundraising lañ ñëw def c'est une première pour un parti politique di woon nit ñi guichet ngeen ñëw pour joxe seen xaalis donc sa veut dire ya réellement y a y a une et ñi ñaan aussi le 17 novembre. ñu ñu am une majorité confortable pour mën a dérouler le projet de PASTEF je vous remercie. donc dañuy continuer rek di leen jox réaction gis ngeen ñi nga xamante ne ñoom ñoo tee ah ci biir euh, stade bi mu fees dell ak ngeen di gis bokk na si ñoo xamante ne ñoom ñooy membre euh, MONCAP ah. merci beaucoup. Sénégal 7 Mais merci, merci beaucoup et du courage euh, pour Sénégal 7. Hein. Oui, on est là aujourd'hui réunis euh, pour ces méga meetings euh, organisés par PASSEF. Mais on a l'habitude de faire ce genre d'événements et cela montre également la détermination de tous les patriotes autour du parti et que... Voilà, donc dañuy dem très rapidement voilà donc dañuy dem très rapidement jolaat leen li nga convoi bi wa ah? ah, maa euh, ngi waa a yéeg spectateur. maa ngi waaj yéeg léegi pour bégal téléspectateurs yi nekk fii yëpp mais nag maa ngi apprécier sa liggéey sa taxawaay rafet na se liggéey rafet na. Sénégal set non Sénégal 7 mooy sunu 7. juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari suuf ak Sénégal set ci kanam. mais ji bi da nga sañse. waaw mais pexe amul ko laaj bis bee ni ñu toll ndax nii may waxee yow te àdduna wër nga képp seen bët a ngi tegu ci lii nga xamante ni mooy vraie démocratie xam nga ni pour la première fois dans la vie de tout le monde ñu am président boo xamante ni 44 ans la am loolu yombul ci réew ba ñëpp di lu naw lool kon bu wootee war nañ ko wuyu si. jëmmal bis bi kattanal bis bi dooleel bis bi waaye jërëjëf waa Sénégal set yàqu leen bis bi barke yonent bi bu leen neexoon ngeen dem ba ca àllu Fuuta ni fii leen waaye nit néew bi waaye defu leen loolu toujours égal à lui-même ah voilà lui-même muy Djiby Seye am solo boobu xamante ni tout à l'heure convoi bu leen ko ngeen gis Ousmane Sonko motard yi accompagné ko une forte pour leneen la ñuy topp keneen ku yose leneen na nga ko téye xam nga 50 ans la wax 100 de plus ñuy toog ba doyal rek que wi leen di xaar. li tax ñu fal leen ñëw xam nañ ko damay dool di waxaat sama moroomu jeunesse dañu dal ñu ànd ak teggin xam ne li ñu doon xeex bénéfice bi dina ñëw waaye bu fekkee ne yow da ngay xeex di sóor sa bopp yow man dama jàpp man doomu ndar man damay xeex pour future génération bi ñëw bi ñëw la pas man ñi nga xamante nii tey bu ma xoolee si booy bi doon def xale bi doon def xale bu bi doon def publicité bi xale bu jigéen bu ndaw bi doon def publicité projet projet bi man ñooñu laay sóoraale waaye pas man xaw ma ndagam dinaa dee tey wala wala dinaa dee suba mais dafa am future génération boo xamante nii dañuy yaakaar si ñun réew yi nga dem yëpp muy muy Singapour muy Indonésia muy Chine muy Japon seen mag yi li tax ñooñu seen dëkk mel noonu seen mag ñee ko xeex kon ñun génération bii nii génération 90 génération 80 ñooñu la yàlla booleel ñu bokk ak Ousmane Sonko génération pour ñu ngi lay wax jokkanjal jërëjëf ñun ñu la fal ñun ñu tax yow nga egg fii nii ñu ngi lay wax jokkanjal jërëjëf pro yàlla sa jàmm yàgg. ñun yow rek la ñuy topp toppuñu keneen. donc dégg ngeen ko kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag yegsi na ci biir Dakar Arena gis ngeen convoi bu am solo bi nga xamante ne jot ngeen ko gis en fii ci suñu plateforme dañuy continuer rek euh, euh, ci biti. gañe leen élection waaw nga xamante ne moom mooy li ah. na ngeen def kontaan bu baax di ñaanal Aïda Ndiaye sunu président mu dugg assemblée ak Miami bi ñu téye photo bi tey di ñaanal Sonko si kaw ci kanam rek macha allah. baax euh, dégg nga fee nag mooy Jibi Gueye Ndiaye moom teel na ñëw ah. gis naa ni sànq yëngal na fii tuuti. parce que Jibi bu mu dugg see ba tàllal loxo booy ñu ngi ko doon nuyu patriote du moins ñu ko doon nuyu. donc mu mel ni dañu koy rendre hommage. par rapport ak taxawaayam à l'endroit de leur président muy président Ousmane Sonko. donc dañu ñëwoon ci salle bi rek pour jox avant-goût. laata biir du commencé. nit ñu ngi installé wu ndànk-ndànk espérons ko fee nga mais matar Dakar Arena la ça faisait partie du projet Sénégal émergent léegi nag on de Sénégal 2050 ñu jàpp ne lii yëpp euh, sénégalais yi ñoo liggéey parce que alalu Sénégal lañ ko defaree te jàpp na tey ñii dafa war a ñaax li nga xam ne ñoo nekk gi ñu gën a xam ne ils ont quelque chose à pour le développement du pays on parle Sénégal émergent mais tey on également de souveraineté parce que réew mi jàpp nañ ne jamono ji dañoo